àdduna dafa am lu ñuy wooyee des des tenues des tenues qui sont décentes loolu dafay am parce que léeg-léeg nga liggéey ci liggéey léeg nga liggéey ci kër goo xam ne ay waxambaane ponk lu jëm ñoo fay nekk tu ne peux pas te permettre n'est-ce comme tu la comme tu l'autre jour sol sol sol euh, comment dirais-je short euh, sous fes ne da ngay liggéey wala sol yére boo xam ne nii da ngay da ngay décolleté xam ne ku ku tourné gis la non am na aussi respect boo xam ne moom la ñu war a dundee ci biir kër gi. mais mais day liggéey mais day euh, heure kii am day jot de 17h fu mu jotee war na mën a sangu def ba mu baax de. non non attention. Ah, attention ah. def ba mu baax. kenn bañu ko ci mais. lan baax def ba mu baax c'est relatif. lan lañ tuddee dem ba parce que est-ce que def ba mu baax. mooy ku nekk ak sa façon def ba mu je ne dis pas le contraire laisse-moi laisse-moi ma wax li may wax mu leer dama ne. est-ce que def. non kon ku la wax du wàcc. la non def ba mu baax lan lan mooy def ba mu def ba def ba mu baax sol laa wax. bàyyil ma li ma expliqué mon père s'il te plaît. su defaru jotee dina defaru. kenn oh, oh, pourquoi pas. Hmm. defaru bu jotee da ngay defaru kan moo wax ne doo defaru. ah bul ma wax loolu lu ma waxul. man waxuma ko defaru. waaw mais da ngaa bañ di oyofal. non non Sofia wax dëgg la boo am tenue adéquate pour kër gi. Ah. foofu la prospère bu exactement boo ma dégluwul nag da ko man xam nga ne yow man am mi ma judd ku ragal judd wu ci da rek. Hmm. ok. dama ne est lan mooy defar ba mu baax. dina solu de. defar ba kan moo ko teree solu defar ba mu baax mooy liggéey ba wàcc jot nga solo loo xam ne sa sa wet day ni ci biti mooy defar ba baax defar ba mu baax ah, mooy waxuma la loolu de liggéey ba wàcc jot sol suufes say pooj ne loolu mooy defar ba mu baax waxuma loolu de donc arrêtement dama di defar ba mu baax man mi lay wax waxuma la loolu de waaw moom laa lay wax dina solu laa wax ndax nit la mais bien sûr que dina solu ndax nit la loolu dafa mel ne nga ne géej am na ndox c'est évident ça am na ñoo xam ne lu nu sol rafet waaw non moom laay wax mais dama wax. tenue boobu ngay wax ne da leen koy wutal jox leen ko. soo leen wutalee tenue bi ko solee. keroog na ñuy gën a tàkk dañuy tëb dëgg a kontaan naa yow lan la. lan la dama wax ne encore une dama ne lan la yàlla moo koy def ci nit am na ñoo xam ne loo def lu dama ne ab caq sax suñ ko takkee suñu génnee barke borom Tuubaa nga bëgg a toog loolu yaa xam yow yaa a mais xam nga boo demee bay wax naan xam nga feri jànq feru jànq bu ñu ah. demee ba borom kër ba ci biir kër gi ñuy gis ay feru jànq bi il y a problème fere jànq ban. yaa ko wax fii ba keroog. man maa ko wax. waaye nag am na droit ak ay fere yaa ko wax. man maa yaa ko wax yow. waxuma la loolu de. yaa ko wax bu ma dugal wax. Eh, yaa ko wax yaa ne am na droit ak ay fere. waaw waaw yaa ko wax barke Baram Touba waxuma la ko. waaye ma ne yaa ko wax barke Seydina Mouhamed yaa ko wax. barke Baram Touba waxuma la loolu ay fere yaa ko wax yaa ko wax fii keroog. loolu yàggul de. yow loolu yàggul. dimanche loolu yàggul. da nga ci jot yëpp da nga ci jot yëpp ah baare la eh, non dañ ci jot yéen daal dem leen baar seen papa la wax leen ak moom dama ne ndax yow yaa ko papa naroon dugg lay dugg lay wax leen ak moom seen papa la moo eh, ko wax keroog yaa ko gën a jege papa loo waxoon man man waxuma ay feri jàng ah, waxuma ah, ay feri jàng ah, tudduma fi ay feri jàng papa yaa ko wax da ngay daw tudduma lan la yaa ñi amuñu baar déglu déglu déglu Bakary tamit da nga ne fàtte xaju fi dama ne ah, waaw. boo leen noppee rek ñu ne da nga ne xam nga fan la wax ji jógee. mooy tul de loxo bi daa <laughs> da nga ne. man su ma dóoree gendarmerie foire la jëm da nga ne. ah xale bu jigéen bi barka borom tubaab bi bugaan na nga ci wax bul ma sosal de. waxul ma ko lu ma waxul. waaw bàyyi ma yeggale. bul ma sosal non non bu ma ne da nga ne da nga ne. waxuma loolu de. nit ñi sax da ngeen yéen li ngeen daan bëgg mooy jànk ji di sol fer parce que bu ñuy boot seen doom yi sax di bàyyi ma yegale bu ko. ak jànk nu muy bootee doom maa ngi ñëw kii mooy naa fekk ak jànk nu muy bootee. ak jànk nu muy bootee dégg muy bootee. prospère. parfois waaye yéen du ngeen wax ci yii. bu jigéen da ngay tàmm takk fer ba soo amee doom sax da ngay takk fer. pour sa doom ji dégg bruit bi. non non non non jeex na dootul wax bi duñu wax dootul wax dootul wax ak yéen mu ne xale yi tàmm nañu dañ koy tàmmee seen seen ah, village. ah lu ñu wax andi ko biir kër gi. Ah, te doo ko nangu ah, lii la père wax. ah ñu yóbbu la fa. lii nga wax lii nga wax papa yaa ko waxoon. barka borom Tuuba dama ne ab jànq nu muy bootee doom. non non non réfléchir la mémoire. quand je dis jànq mooy jigéen quoi jigéen. je vais lui réfléchir la mémoire. waxuma leen lool de. foofu lañ foofu lañ foofu la tàmbalee laissez-moi lui réfléchir dina dem ba am na foo xam ne su fa tolloo su fa tolloo su dee xaraf wala muy dugg néegu góor di nga dagg ci sa fer papa da nga ne da nga ne xale bu jigéen bu tàmmee ci fer bi depuis këram bu ñëwee ci kër bi lan moo tax du ko takk yaa ko wax papa. mais léegi bàyyi ma réfléchir ko la mémoire. man maa yegg sax beneen la. dëgg la man léegi continuer ah, non non on continue. man waxuma foofu dañu dem vaar yéen waxuma foofu dem ma déedéet dem ma man waxuma loolu. Ah, man waxuma ab jàng ah, ab jàng waxuma ko de. sooy bor doom yegg naa ba ci ak yow. Oh, ne la borom borom kër demal borom borom ku jigéen ki fii sëy sax ay feram am na fu mu koy wanee. waaw yegg naa foofu ak yow. dëgg la ñu ngi may dégg may wax werante euh, naax xaju fi. ma ne la bëggoon naan dara bëggoon ndox wala dara. on continue notre chemin. voilà non on continue non non moi je continue mon chemin. laisse-moi continuer mon chemin. d'accord parce que effectivement. d'accord mënul mënul jaxasoo ba ma lay waxal loo waxul. mais man yegg naa ak yow sax foofu bii passé. bàyyil warante bi bàyyi li nga def arme nan dem dafa am fu nu nekk nan dem nan dem nan dem. ayca nanu dem jànq bi dafa war a defaru nit la su wàccee day defaru. Mm-hmm. ah na sol. na am nu muy defaroo ci mayaade parce que émission bi. mais may sa papa kenn du wax. am nu muy defaroo. d'accord waaw nga daaneel euh, après. léegi na am nu muy defaroo may muy am na jigéen ñoo xam ne lu rafet. am na jigéen ñoo xam ne lu nu def rafet. loolu loolu on disconvient pas. waaw mi loolu le xamal yàlla mooy bind doomu aadama melloo ko ni mu bëgg mu mel ko mu solee sax boo jëlee ay sagar jox ko sax bu toogee effectivement ñu xam ne jigéen a toog le débat c'est pas ça loolu laa wax personne n'a le droit de dire à quelqu'un dañ fiy liggéey soo wàcce amoo droit solu non le débat n'est pas ça encore une fois may faral di wax la ma naan wax arrête d'amalgamer père waxuñu loolu mais ba ñu wax ne hmm. lu nekk ak barabam <coughs> fii ngay liggéey sax yaa ngi koy wax léegi lii nga lii nga lii nga ñëwee tey moo la gënal Safia moo lay sax di la imposé yenn saa yi. ay près corps voilà xam nga ma yaa ngi wax ku nekk am na la la gënal. mais lu nekk aussi am na fu ñu koy sole dama la doon rafraîchir la mémoire ma wax encore une fois ne man toujours maa ngi ci position wu astu parce que dafa wax sànq. Mhm. fan la borom kër ku lay liggéeyloo war a tollu ci fu mu lay dóoree. Mhm. dóoree pourquoi. dóor moom waxuma ko ñu toll foofu dans la pour la bonne et simple raison. moi je vous comprends parce que loolu dama si jàppanteeg man sama waa kër sax jànq day xëy suba wara fobeere wala bale wala fobeere war a taal war a raxas ndab lépp moo koy def ci biir fobeere bi rek da ngay gis xale yi ni ñuy ping pong di ko yooyu c'est des choses yoo xam ne dafa mm-hmm. nit ku nekk nit la aussi parfaitement nañ ko nañ nañ waxante dëgg moo tax moo tax sànq bi ñu koy wax ne ko effectivement affaire bi dafa yomb man je me dis que sax gis nga c'est des remarques yoo xam ne mhm. souvent bu ko jànq defee sax ku nekk ci biir kër gi dañ naan yow yaay kan ba di ma jox ay ordre <laughs> alors que li mu lay wax c'est raisonnable mhm. nit mun la ko fobeere roob muy cuut capet cuut capet saa yu fobeeree wañ nii bëgg a tegaat gis di doom wala sa jabar mais attention disons-nous la vérité dinaa ñëwaat ah, ci yow Bara Pouye nee na père waxul père dafa ni woon euh, euh, père vous a dit ah, être une bonne n'empêche pas de euh, de mettre des perles d'accord billaahi wa bu feeñul baara waaw baara nan loolu la ñu wax ñun nu mu sant baara puy la sant puy da ngay kii sant loolu la ñu wax kii nu mu sant puy waaw mi ngi dëkk mbaaw mm-hmm. wala mu dëkk soo demee ay puut mm-hmm. nga xam ne ay sëtu càkkum nanu ak ay gërëm mooy puyeen googu ñu ngi puut ngi sengee soo ñëwee ba mbaaw ña nga fa puyeen gaa nga fa ñooñu du ñu wax lu ñu kiiwul dama ne lim ni bi di mel mu ne léeg-léeg mu takk ay fen ñu ne ko ah muy dox muy def ah, mu ne waa xanaa du nit. asu jàng bi amul droit takk ay fer. asu voilà c'est ça. merci beaucoup Sophie guddal fan. <laughs> asu merci mës ngaa tase kolon nag ba nga xam ko. waaw papa doo tee question ma dem ci Maya mu bokk ci waxtaan bi. après nga ñëw ci dama ko bëggoon laaj li bala mu rek. d'accord asu asu asu ñu ngi ñëwaat ci moom léegi Maya.